jeexale wala boog tam beneen bi nga xam ne dinañ ci dinañ ci dinañ ci taxawaat mooy président Macky Sall moom bu ñu xëyoon bis ba ne yegsi na est-ce que régime actuel dañuy taxaw di ko seetaan muy lëmbër lëmbëri ci réew mi jàpp naa ne loolu bu amee mooy grande erreur boo xam ne dañ ko def maanaam euh, li xam ne moo di Sénégal liberté wu Sénégal yeggul ci président Macky Sall di dellusiwaat ci réew mi ñu koy bàyyi muy dox li nga xamante moo ay yitteem ci biir réew mi waaye itam di wax ay soxlaam ci réew mi di financer ay partim ko mooy sanctionné ak lu ñu mën a sanctionné ak nu ñu mën a sanctionné ki ñi nga xamante ni ñoo fi nekkoon waaye nag ñooñu buñ leen di wax ka jiitu nekk sa cappaandaw moo di président Macky Sall te itam Sénégal yàgg naa di ko wax buñ di fi jombale atte fi président wala bëgg tëjee ko fi parce que Hissène Habré nekkul woon njiitu réewu Sénégal njiitu réewu Tchad la woon waaye ci fàttali fii ci Sénégal la ko attee fii ci Sénégal la ko tëjee ba fii la ñàkkee bakkanam moom jëmul ñu daal ñu war bëri dañuy taxaw ci li nga xamante ni moo di euh, haute trahison est-ce que haute trahison mën nañ ko mën nañ ci seetal Macky donte ne suñu yoonu réew définir ko waxul exactement ku sàcc kurus moom nga def euh, la nga def haute trahison la ku sàcc téléphone la nga def haute trahison la mais président Macky Sall nga ne saa bu xëyaan la muy def haute trahison lay tudd parce que euh, boo jëlee ñaari yoon yi nga xamante ni taxaw na ko janoo ak Sénégal mooy bi ñu ko falee en bi ñu considéré ci haute trahison haute trahison daf cay bokk mille mille milliards wala tam milliards yi nga xam ne yëpp ñu euh, euh, yi nga xam tudd ba euh, a jaar ba tax amaana ñu bëree ngi ci ay bakkan ñoo ci waddee ak yoo xamante ni jàpp naa ne président Macky bu dee haute trahison kese kese mën nañ ne saa bu suba ba ngoon jéego bu mu teg effort bu mu def mën nañ ko dippee li nga xam ne moo di haute trahison léegi nag ndax régime bi fi nekk actuel dinañu am li nga xamante ni moo di respect wala boog tam responsabilité bu toll ni xam bu baax baax fan lañ war a jaar ak moom wala boog tam fan la ñuy yegg ak moom en tout cas bu ci benn manipulation am c'est-à-dire que mooy wax manipulation mooy di nga wax loolu am ko la bon kon dafa mel ni kon Sonko ak Diomaye ñoo yor li nga xamante ni moo di justice du doxal non non non mais nag ñooy chef parce que ñooy seen kilifa loolu ala kulli nga bëgg ko nga bañ ko jamono bi le président de la république moo jiite ki nga xam ne moo di ministre de la justice mënee su koo bañ moo jiite li nga xam ne moo di magistrat yi parce que mu nga foofee ci seen geste di fa seesi waaye itam bu dul loolu dafa am euh, responsabilité bu koy xaar mu dégle woon ko ak Sénégalais yi mooy dina fexe ba jub jubal waaye itam jubbanti léegi nag jubbanti googu est ce que mën na bokk ci biir ki nga xamante ni moo fi nekkoon 12 ans di tëj di rey di yàq kooku nga bàyyi ko mu nekk ci réew mi di lambar lambari ak itam di jël alalam di ko financer di continuer li nga xamni modi manipulation ba mëna xalaat que ne dina am nombre de députés ci assemblée nationale japp naa ne loolu euh, ñom ci seen bop ñoy ñoy ñoy ñoy juger seen bop ban bëgg bëgg la askan bi amoon ci ñom ba tax ñu fal leen dañ koy tas ci baye Macky Sall mu yex ci réew mi di def lu ko neex wala bëgg tam dañuy appeler ki nga xamanteni moy di bëgg bëgg bu Sénégal yi amoon moy sanctionner régime bi fi nekkon euh di Macky Sall ak ñima andulon booy sanctionné wax dëgg yàlla boo jotee ci ndayu mbel gi mu di Macky Sall dafa seetal sa waaye itam jàpp naa Sénégal yëpp li ñuy xaar mooy mu dugg ci réew mi euh, doon remplaçant am euh, mu ñu ko defoon député gëw mën dina ñëw ci Sénégal parce que <laughs> amaana peut kay topp ci kawam bëgg itam ki nga xam ne mooy numéro 2 am mooy nekk ci li nga xam ne di place am mais euh, Macky Sall soxlawul di ñëw Sénégal di nekk ab député jàpp naa ne parce que euh, démission xam ne fii ba fi duggee euh, boobu man am naa ci doute que ne loo xamante ni la parce que ci histoire wala bëgg itam ci bopp Macky Sall démission moom parce que nekk na koo xamante ni bu doon ab jeeg buy sëy ci kër loo ko bundu du fay mukk xanaa yaa koy waaye itam takkal ko li nga xam ay bagage wutal ko lu ko yóbbu ko boole ci yeta xiir ne ay ci demal parce que toogoon na fi nga ñi Sénégal yëpp te teewul muy kon toog di ñu jiite toogoon na fi amaana ray Sénégal yu bëree bëri mais teewul muy kon ni di ñu jiite mais teewul toogoon na fi itam ne réew mi moom dafa suur dafa doyal sëkk sëkk sëkk mais kii yëpp nag wax dëgg jaar ak ñun fii yëpp di dugaat suñu ay liste di xaar li nga xam ne mooy di baatu askan bi mooy yeb na Sénégal yi yebeer gam leen yeboon ba kon ni di leen jiite 12 ans loolu nag Sénégal yi wax dëgg am nañ occasion pour saafara ko ci élection yi ñu dëgmal mooy lan xool li xamante ni moo di ñi fi nekk euh, ci li bi ñu fexe ba jox leen majorité ba ñu soxla ci biir assemblée nationale gën 170 députés après 5 députés nous jëm ko parce que doxalin bi day a parce que nous avons ak arrangé wul dafa bari manam du rek euh, régime Macky Sall la arrangé wul mais système la arrangé wul légui système bobu nak ak fu ci way le ak fu ci way bokku bo amé ben li nga xamanteni modi ci nga assemblée bi pour bloquer li nga action du gouvernement té loolu japp ne yoon dajé gi nak amana mën sukuraat goo xamante ni moom la système bi di sukuraat parce que euh, boo gisee kenn daje gi li may expliqué leen képp la mooy ku ci nekk xeeb nga sa bopp ci la nga nekk euh, xam nga da ngay dégg ñu naan kenn mën ñaar wala boog itam ñaar a mën kenn euh, mais loolu toujours ki koy wax mooy jàpp na ne moom dooleem xaw na faible mais le fait que nga gis diw ak diw ak diw daw daje diw diw daw daje Euh, nekk nañ ci àll boo xamante ni wéet nañ fa tiit nañ fa am nañ yaakaar ci ne la ñuy wuti ñoom mën a suñ koo am euh, naka lañ mën def mooy ñu jéem boole seen ay doole léegi nag askan bi ñooy am foofu benn sens boo xam ne parce que élection yi passé euh, boo xamante ni doo wote ak sa sago parce que présidentielle bi nga ne sénégalais bi dëgg na bëri nañu wote waaye wote wuñ ak seen sago donte la sanctionné nañ parce que gisoon amaana benn jaay doole goo xamante ni ko doon teg ci benn camp amaana sax ba choisiruñu li nga xamante ni moo di candidat ba ñu bëggoon ndax ñu bëri Sonko doon seen candidat mais mu mujj ak li ñu ko teg ci kawam yëpp mu tànn Diomaye ñu daal di ànd ak moom ci tànneef googee waaye kooku nag léegi dafa am possibilité élection bii ñu dëgmal dafa dem ak sagom yëg ne maanaam système la ak anti système maanaam anti système yooyu yëg ci au pouvoir mais système yëg ne yëg si nañ mais waruñoo mën a doxal ba léegi dañoo a tënk ni laataa ñu yegg ci élection présidentielle dafa fekk askan bi yëpp gis seen faay gis seen télé ci naka liggéey wala boog itam bépp càkkutéef boo xam ne am nañ ko téye ndi ko assemblée nationale kon jàpp naa ne Sénégal yi le fait que ñu xalaat a jox benn député euh, wala boog itam benn place ci assemblée nationale ci système bi fi nekkoon mooy pare guñu pour changer li moo di Sénégal maa ngi jaajëfal baax a baax Baye Tafa foofu laa koy gàttalee tey doon ah Baye Tafa 18 minutes 18 minutes baax na amoo lay wax tey amoo la may lay. Hmm. ak ça maa ngi lay jaajëfal baax baax commentaire yi euh, des fois ñu gis ko des fois moom yi négatif nag voilà mais ñun seen ñu leen ciy jaajëfal baax a baax euh, toujours ki nga xamante ni day ñëw amaana jàpp ne peut dafa am benn euh, arrogance wala ba itam yëg suñu bopp nekk ci ñun barki waaw barki lislaam loolu nekkul ci ñun non non non suñ xalaat la wax jàpp rek mooy li nga mooy naturel ci doomu aadama bi ku nekk na joxe xalaat bi nga xamante am na ko bu ñu ngi ci beneen monde boo xamante ni euh, nit ki xel lay waxee xel ba nga am na loo yor ci xel mais fexeel génne yow itam say idée boo amee foo ko partagé nga partagé ko bu idée bi dajee ci terrain bi après askan bi ci boog seen sujet mais soxlawul di soxlawul di xaste wala bokk tam ci dugg ci yeneen ak yeneen nañ leen bu baax a baax euh, di jaajëfal itam ñi ñuy suivre toujours de notification jox dig